baaxoo di teewlu xibaaru bambuk dalee na jàmm ci seen tënkum xabaaru euh, bés bi conseil euh, régional de la jeunesse bu Kaffrine euh, daal di nañ dalal ci conseil départemental bu benn atelier boo xam ne dañuy daal di tollale xayma ak xam-xam bi nga xam ne ndaw ñi am nañ ko ci projet boobu di Agri Jeunes buñ sukkandikoo nag ci kàddu ki nga xam ne moo jiite conseil régional de la jeunesse di bay ngatu Ndiogou li nga tax li xa li nga xam ne mooy objectif bi du dara lu dul fexe ba ndaw ñu dëkkee ci région de Kaffrine daal di xam yan njëriñ moo nekk ci projet boobu di Agri Jeunes loolu tamit daal dinay tax mu fàttali ne bañ ko daal di taxawalee foofu ci Kaffrine ba léegi lu toll si ñaam fukki ndaw ak ñeent daal dinañ leen financé gannaaw loolu tamit daal dina ñaawlu yenn projet état yi nga xam ne dañ ci daal di rax politique bu baax ba tax na ni mu war a àggee ci ndaw ñi dootul fa mën a àgg gannaaw loolu ñu àddu ci euh, lu jëm ci accident bu amoon fële ca euh, Sikilo ba léegi ci région de Kaffrine ñi nga xam ne nag ñoom moom bis bi di monsieur Tine ak monsieur Sow ñoom nag euh, daal dinañ leen di déglu laata loolu bañ leen dégloo ba pare daal di leen def li nga xam ne mooy placé leen mandat di dëppo ki ko def nag mooy ki jiite parquet Saloum bi di Cheikh euh, Dieng ñoom nag li ñu leen toppee mooy jël euh, bakkanu jàmbur euh, daf ko maanaam utiliser bakkanu jàmbur mu nekk ci danger waaye tamit leneen li nga xam ne topp nañ leen ko mooy ñàkk assurance défaut d'assurance waaye tamit bokk na ci immatriculation ak lu jëm ci problème mu pneu loolu yëpp bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne seeni oto yooyu am nañ ko bay accident bi di am ba tax na ñu daal di leen teg loxo. Euh, ganaaw loolu dinañ jàkkaarloo juge bi ki euh, fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier bii di ñëw te dañ leen nar a àtte fële ca euh, tribunal bu Kaolack juge leen en flagrant délit ñu àddu ci fële ca Thiès ak seen maire bi di Babacar Diop daal dinay tàmbali programme boobu nga xam ne mu ngi ko wooye éducation formation pour tous. maanaam maanaam daal fexe ba képp kuy doomu Thiès nga mën a am éducation waaye tamit nga mën a am formation boo xam ne dina tax nga mën a am si loo jàpp loolu nag tax na mu daal di jël lu toll ci cinq cent cinquante bourse daal di koy jëla ndaw ñi nga xam ne ñoo dëkkee foofu sa Thiès enveloppe bi nag ñu ngi ko mën a xayma ci euh, cent dix millions loolu nag fas yéene na ko séddale si ñaar fukki euh, établissement formation publique ak privé ak ñett yi nga xam ne ñoo nekk foofu euh, sa Thiès moom nag li tax mu def loolu du dara lu du fexe ba ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw wala ñi nga xam ne amuña xaalis wala amuñu moyens yoo xam ne dina leen tax. ñu daal di dem def formation professionnelle mu daal di leen wutal euh, li nga xam ne mooy bourse maire bu cees euh, fas yéenewul yem ci loolu ndax nee na da leen di jàppale accompagner leen bañ am seen licence waaye mu daal di leen accompagner tamit bañ am seen master waaye fexe euh, ba dimbale leen bañ daal am seen liggéey boobaa ci lay soog a jàpp ne li nga xam ne warloo na ko ndaw ñooñu daal di nay mat. ñu des wàllu tàggat yaram ak euh, ubbite CHAN ba fële ca Algérie niki stade bi bees bi nga xam ne lañ duppee Nelson Mandela moom lay moo dalloo match bi njëkk waroon am ci diggante Algérie ak Libye liñ fa nemmeeku nag mooy vert et blanc yi Algérie ñoo daal di dóor benn bal ci dara ci euh, penalty niki tey nag euh, bu 19 heures jotee gayndey Sénégal yi ñoom ci lañ war a amal seen match bu njëkk ñoom ak Côte d'Ivoire foofu ca stade ba.